jéggalu ndax sànq dama xaw a tardé tuuti xam ngeen ren euh, maxima bu Belgique moo fi nekk euh, mu am ay séance de travail yu doon def léegi nii ci kanam aussi dañuy demaat yeggali liggéey boobu te lépp di wax ci lu jëm ci wàllu inclusion euh, ma ñëw aussi fekk fii ñu nekk ci lancement wu programme 1000 femmes bi nga xam ne ministère de la formation professionnelle moo ko piloté le ministre Dame Diop ma koy nuyu di nuyu également ki fi teewal ministre Samba Ndiobène bu développement communautaire di nuyu affaire mondiale Canada ak collège et institut Canada di nuyu mboolem bànqaas yi nga xam ne ñu ngi ci wàllu état bi di nuyu coordonnatrice u programme mille femme docteur Ndoumbe Diop di nuyu ñi fi teew yépp di am mbégte pour fekkee lancement programme bi ndax lu am solo la foog naa muy inclusion muy wàllu lu jëm ci naka lañuy ñuy gën a encadrer jigéen ñi seen taxawaay ak li ñuy liggéey ci mu bokk ci lépp luy tabax koomu réew mi luñ ci def rek day daal di laal suñu ministère ndax euh, ministère la boo xam ne euh, bokk na ci ay mission am ak ay prérogative am xool acteur wu économie sociale et solidaire yi naka lañ leen mën a encadrer naka lañ leen mën a former loolu nag bi président Macky Sall amee yéene ci képp ku nekk ci réew mi mën a bokk ci liy tabax ak liy liggéey réew mi ci wàllu secteur bi daf ko tënk ci li ñuy wax loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire ñu waroon ko jëmmal ñun ñu désidé jaarale ko ci li ñuy wax plateforme numérique Sen Label ESS ci la bokk day jëm ci wàllu formalisation day jëm ci wàllu encadrement day jëm ci wàllu appui financier loolu yëpp benn agrément moo leen koy jox loolu nag buñ ci nekkee euh, lii ñu ñu présenté léegi ci programme mille femmes day daal di méngoo moo tax ñu lëkkale suñuy doole ak suñuy possibilité dinañu permettre aussi junniy jigéen ñi nga xam ne fas yéene nañ leen tàggat ñun tamit ñu jàpp ci ba junni jigéen ñooy kenn ku ci nekk ci junni yooyu mën a tàggataat junniy jigéen foog naa lëkkale doole yooyu buñ koy def mu gën a yaatu jigéen ñëpp dinañ ci xaj kon maa ngi félicité bu baax programme bi di remercier aussi partenaires canadiens yi nga xam ne accompagné nañ ñu ci di félicité euh, di remercier le ministre daam Diop mu boole ñu ci programme bi surtout mais di ko Euh, di nawlu torop taxawaayam ci liggéey bi nga xam ne njiitu réew mi dénk na ko ko te di réaffirmer que ne euh, ministère bi aussi dina nekk à vos côtés pour que lépp lu ñu mën ci wàllu accompagnement ñu mën ko def pour que programme mille femme bi mën a atteindre ay objectif am maa leen di gërëm di leen sant. gannaaw bu ma nuyoo madame la ministre Zahra Iyane Thiam ministre de la microfinance de l' sociale et solidaire. nuyu ki nga xam ni moo fi teewal affaire mondiale Canada nuyu directeur général développement communautaire représenté suñu collègue le ministre en charge du développement communautaire nuyu madame la directrice de sikan maa ngi nuyu directeur généraux yi fi teew yépp directeurs nationaux yi chef de service chef de programme conseil technique des différents ministères nuyu aussi les inspecteurs d'académie mais aussi les directeurs d'établissement ak invités yi fi nekk yépp wax bu baax sama mbégte tey teew fii ci ñuy lancé programme bu bees bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee 1000 femme mille femmes mooy junni femme programme bi niñ ko waxee léegi dafay dugg ci priorité président de la république son excellence Macky Sall bi nga xam ni ci plan émergent daf ci am axe bu am solo bu ñu tuddee capital humain te président de la république jox ci programme boobu jigéen place am bu baax. maa ngi koy wax léegi ci nasaraan téeméer boo jël ci Sénégal juróom fukki ak ñaar ay jigéen lañ donc programme bi ñu tuddee mille femmes dafay dugg ci biir programme boobu. junni femme nag bu ñu ko waxee mooy programme bi dafa bëgg tàggat junni femme ci juróom-ñaari région yi ma xam ni junni femme yoo xam ne dañu bëgg ñu nekk ay championne ci wàllu formation mais aussi ci wàllu autonomisation de manière générale loolu moo tax. ñu ànd ci ak affaire mondiales Canada ak SICAN ñu leen di sant bu baax ci accompagnement boobu moo tax ñu jàpp ne programme bi am na solo parce que émergence bii ñu jëm deux à l'horizon 2035 mënuñu ko def sans les femmes kon boog junni femmes ci juróom-ñaari région du lu du lu néew donc may wax rekk ne rafetlu naa bu baax ñi nga xam ni ñoo fi teew ci chef de projet ci direct ci ministère ci direction mais si les structures décentralisées coordonnatrice wax na ko mënuñu rek tàggat junniy femme ci Sénégal yóbbu leen ci autonomisation def leen ay championne bu fekkente ne benn ministère de la formation professionnelle rek moo koy gàtt dafay ajoo liggéey en synergie loolu tax ma bëgg sant bu baax sama collègue madame le ministre Zahra Iyane ci teewaayam ak sama yeneen collègues yi nga xam ni seen agenda moo tax teewuñu fi yónnee fi ay représentants programme bi toll na ci juróom-ñetti milliards ci suñu xaalis ñu ànd ci ak gouvernement Canada li ma waxoon bi ñuy tëgg programme bi rek duñ ko def li ñuy tuddee saupoudrage junni bari na bariwul mais dañu bëgg su programme bi jeexee ci juróom-ñaari région yooyu nga xam ni wax naa ko ñu am ci junni femmes yoo xam ni ay kàngam lañ ay champion lañ ci li ñu nekk ba mën ku ci nekk ci ñoom mën a xëccaat lu tolloog junni femmes kon boog maa ngi félicité bu baax waa projet bi di remercier au nom du président de la République au nom de tout le gouvernement sénégalais le gouvernement canadien su ci accompagnement bi nga xam ni def nañu ko. may wax rek ne tey dañ koy ubbi solennellement mais suñu jógee ci lii travail technique bi day continuer may ñaan seen teewaay bu rafet bi ci diversité structure yi nga xam nekk nañ fi ñu continuer ko noonu ci projet bi pour que résultat yi nga xam ni yéene nañ ko ci ñu am ko ci.